demal nga lijjantil ma ko bu ko kenn xam c'était la première fois moi je prenais les déclarations et je tapais tax damay jël déclaration bu ñu génnee ma saisir nelawuma deux jours pour def loolu comprendre léegi bu ñu demee ba bu ñu koy convoqué dañu may dama ko nee dama war a convoqué waa ji mu ne ma bu ñu ko woowee du répondre demal ba këram. ah moom moo la sa chef moo la wax. moo waaw moo ma ko wax. Hmm. ma bind ko message ma woo ko d'abord décroché ma bind ko ma ne ko man la diw. bu ma ko defee ba pare aussi dama capture message bi ma yëndi ko sama chef ma ne ko ah woo naa ko répondreul ma bind ko message bu ma ko bindee message nag jox na ma adresse këram suba dama fay dem même jour boobu aussi daf ma ne rendez-vous 10 heures comme dama doon liggéey guddi gi yëpp 4 heures du matin laa nelaw jour boobu 10 heures laa yeewu après mu bind ma message. ko. pour jox ko convocation waaw. après mu woo mu bind ma message ne ma monsieur Touré je vous attends on avait rendez-vous à 10 boobu laa. jógee ma ne ko jaril ma jël sama oto ma dem bu ma ko joxee aussi gis nga fu ma ko joxee euh, kii bi euh, convocation da ko déchargé foofu laa ko photo directement yónni ko sama chef moom aussi mu yónni ko chef am. et après vous n'avez plus. on n'a plus jamais aucun madame euh, xam nga un jour dinañu dee ñun ñëpp dinañ taxaw si kanam yàlla ba si kanamu yàlla amul kenn koo xam ne mun na la wax ne am naa contact ak Ousmane Sonko ba affaire yi jeex mais nag xam nga boo nekkee yow kese. yaa a un de médias yu lay xeex malheureusement te aussi tu es novice xam nga man dama am bu ma amul xam ni doo wax ne da nga am courage mais man bu ma amul woon courage damay dof wala ma daw ma génn réew mi parce que tellement man koo xam ne yow yow da nga doon toppatoo say mbir rek di julli yow di déglu say alxuraan di auditionner ay nit di def ay PV di defeer ñu jékki-jékki rek on fait de toi le diable loolu foog nga am courage yàlla jàppale la dëgg pour nga mun si génn moo tax dama si sant yàlla vraiment di sant sama waajur vraiment di sant aussi Sénégalais yi parce que ñooma ma si jàppale ça se ça Sénégal nit ñi romb nañu si état de manipulation nit ñi dañoo dem ba léegi muus nañu c'est-à-dire ce que le colon arrivé à faire c'est-à-dire di titrer ay journaux di takkal ay nit léegi boo ko defee sa kenn du la lire. madame xam nga gendarmerie c'est une famille gis nga de la même manière que yaa am na ñoo xam ne ñu ngi service renseignement am na ñu ngi fële une famille dafa ñoo xam ne jub la ñu ma xamee. gis na mbir dafa commencé rek am ñoo xam ne rapidement dañu mën ne diw ñu ngi sa kaw moytul am nga ñoom am nga am nga dañoo xamul ne quand vous êtes au sein d'une famille famille la gis nga man ba léegi je continue à. est-ce que vous am na yoo xam ne jarul preuve man j'étais daal xam nga madame jarul wax xam nga xam nga man man je voudrais protéger les intérêts de mon pays gis nga man bu ma génnee gendarmerie ba léegi même technique lu ñuy defee enquête lu ñuy arrêté nit bugguma si waxtaanee parce que dafa am ay nit yoo xam ne. man maa leen formé jàngal leen ko ñu ngi koy def pour man ils le l'État ils sont sous pression ñu ngi leen di def loolu loo xam ne des fois du seen bëgguñu ko mënuñu ci dara moo tax moi aujourd'hui je viens ici je me bats pour essayer de de trouver une solution pour que ñooñu suba parce que xam naa leen xam naa ne ñooñu so bonuñu c'est des gens bien peut-être qu'ils font leur travail et que y a une certaine pression yoo xam ne da leen di def loo xam ne waruñu ko def te loolu pour ñu changer ko il faut pas que ñu xam nga man bu ma demee si tool yi di liggéey nit ñi ñoo ma woo ne ma mon capitaine ce que tu fais lii boo ko defee tu si toi le militaire tu laisses tomber nous les autres on fait comment loolu moo ma jëlee si tool yi ma ñëw fii parce que dama xam ne ils ont raison xam nga bu mbir yi ba léegi man dama ne y' a comme affaire yi demee na nii naa bàyyi mais j'ai compris que c'était pas la conduite à tenir xam nga Pape Alé Niang lan la ma waxoon au tu penses que les gens seront légalistes avec toi jusqu'au bout parce que moi j'ai toujours été légaliste gis nga si je voulais utiliser par exemple ce que j'ai pour combattre wala pour faire la politique ça c'est ce serait ce serait la traîtrise parce que man euh, li ma am yëpp gendarmerie ak état du Sénégal moo ma ko defal tey boo gisee ñu xam capitaine Touré ñu xam gendarmerie moo ma formé ñoo tenue yi ma c'est-à-dire tout ce que j'ai c'est la gendarmerie qui me l'a donné moo tax man si je ne peux pas protéger aujourd'hui la gendarmerie man c'est une famille gis nga tey même quand on m'a fait une cagnotte il y a des gendarmes qui ont contribué de manière anonyme c'est pour dire que moi l'État n'est pas mon ennemi les gendarmes ne sont pas mes moi j'ai pas d'ennemi c'est un c'est une incompréhension xam nga problème bu amee ku ne il essaie de sauver sa peau moi je comprends mais n'essayons pas de personnaliser les choses bu leen bu ñu déglu ñu ñu fu ñu dëkkul waaw c'est un sujet